bon man d'abord dama leen koy nangul waxuma gëm ak gëmuma dama leen koy nangul parce que loolu la ñu jaay sénégalais yi sénégalais yi voté ko massivement nous en tant que citoyens républicain dañ leen koy nangul ndax si biir Sénégal la bokk doon ut ñoom ñuy ut askan wi xool tànn leen ñun en tant que républicain nous soron la di xool nag su baaxee on apprécie su baaxulee on critique on propose des solutions ñun dañoo def vingt quatre ans d' opposition jëlee ko ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall aujourd'hui ñun suñu posture ñun. comment vous avez fait vingt quatre ans d' opposition. deux mille. la ñu nekkoon parti socialiste. waaw taxaw non attends deux mille la ñu nekkoon parti socialiste Abdoulaye Wade jël nguur gi en 2012 nous avons eu des problèmes avec nos camarades du Parti socialiste. 2016 mille 2016. ci référendum ba la oui ou non ba. avant avant y' am am na leneen lu si am avant sax référendum waaye en tout parce que ñun amoon nañu gis-gis. alors ma yëg d' amoon nañu gis-gis bu bokkul ak ñoom donc li si am am na génne nañu nous avons assumé notre position de position. aujourd'hui man jàpp naa ne man ak ñi ma àndal ak ñu mel ni man jàpp naa ne ñun waraguñu am posture opposition tant que gisuguñu gars yi doxal ndax li ñuy doxal dafay dépendre ndax ñun dañoo war a opposer wala dañoo war a am benn position de contribution. Hmm. ndax ñun ñëpp dañoo bokk nekk ci opposition bi ànd nag ci yeewi askan wi lu yàgg. mën nañu am ay points de divergence mm -hmm. mais ces points de divergence ne peut pas nous envoyer maintenant vers une opposition inutile man bu ma ko def gars yi ñu sonn euh, doo bàyyi nit ki tamit wax non Mamadou c'est c'est c'est un provocateur on se connaît xam nga ah, xam nga no non ñun ñun au très contraire à vous parce que yow aujourd'hui da ngaa commencé critiquer fu nekk ko et pour moi ça vraiment c'est avoir un esprit nihiliste loo xamante ne tàmbaleegul nga bëgg a jàll ay critique di dóor man j'aurais bien aimé attends moi j'aurais bien aimé ñu bàyyi nit ñi doxal je ne vous parle même pas de trois mois je ne vous parle de six mois mais deux na au mois une année bouclée ñu doog a xam ndax ñii fi ñu waxante woon ak ñun ñu ngi ci yoon wala nekkuñu ci yoon mais ñoo xamante ne defaguñu une semaine deux semaines critiques yi commencé daw vraiment je pense que loolu loolu loolu du posture bu baax ndax jàpp naa ne ñun nous devons apprendre à s'oublier et essayer de promouvoir l'intérêt de ce pays tey nee naa la une fois de plus askan wi à 54 virgule 28 comme c'est vous l'avez si bien dit ñoom ñoo ne ñoom seen projet moo leen gënal. waaw si aujourd'hui nous voulons rester républicains nous devons assumer la position de ce peuple. ñoom ñoo def choix boobu noonu. ñoom ñoo jël suñu programme. xool programme Amadou Ba. xool programme ba ñu ne programme ba de moo gën. bokk na ak idée waa taxaw wala boo leen ba ci biir ba. non non non je dis une fois de plus. ah dam la ne. Mhm. dam la ne man ak ñi mel ni man. ah d'accord aujourd'hui la plateforme taxawu Sénégal dina ñu évaluer gu leen donc aujourd'hui nous avons envoyé des lettres circulaires à tous les responsables des départements. Mm. pour que niveau des communes ba ci département yi ñu mën a def seen évaluation. remonter ko. d'accord mais nous nous sommes mais euh, ñun kenn tënkuñu. kenn moomuñu. nous avons le droit maintenant de s'exprimer wax li nga xam moom la ñu xalaat maintenant la taxaw Sénégal après di décider loolu leneen la.